am na mission FMI boo xam ne dina dina dina ñëw dina séjourné euh, à à Dakar euh, ñoom demoon nañu euh, ci les printemps du du du Fonds monétaire international mais l'idée qui se dégage c'est que le FMI dafa xaw a dafa xaw a distant le FMI dafa xaw a day xaw a rétracté wu alors est-ce que ñaa ay idées yoo xam ne Euh, régime bi ñu ngi koy ñu ngi koy promouvoir est-ce que loolu mun na tax FMI xaar benn bi euh, c'est sur le souverainisme euh, beneen bi c'est sur la question de la de la de la de la de la monnaie nga xam ne Euh, une détermination à changer de monnaie tamit mën na jaxase économie bi jaxase boo xam ne euh, dootuñu mën a euh, faire face à certains engagements mhm. est-ce que le FMI dafa xaw a distant le moment le temps mu étudier un mhm. li nga xam ne moom le régime bi di prôné xam nga Fonds monétaire international ak banque mondiale li ñu woowee les institutions de Bretton Woods d'habitude dañuy yaakaar ni dëkk tubaab bi ñoo ko moom àdduna bi ñëpp ko moom parce que dañ ko créé woon après la deuxième guerre mondiale pour mu aider les pays européens moo tax américains ñoo ci am pour cent ils disent pour nga am leur ok il faut 84 pour cent des du membre des membres du conseil d' administration bu Amérique bokkul donc euh, mënoo am yenn financement ci FMI wala banque États-Unis te États-Unis la chance que nous avons mooy dañ ko coloniser woon moo tax États-Unis nekkul ci comme yeneen dëkk yi lu ñu nekkee jéem a nax pays africain jaay doole. xëy na mën na ko def ak Chine mën na ko def ak Russie moo tax ñu créé seen BRICS wut seen banque pour wut seen investissement boobu mais le problème des pays africains mooy fa FMI banque mondiale ba mu ñëwee Europe 30 ans ce qu'on appelle les 30 glorieuses pays dañoo utiliser financement yooyu <coughs> développé dem seen yoon et pays africains yi FMI jël na ay mesures yoo xamante ni ultralibéral créé ay. yu yu bëri dàq yu bëri euh, mooy ajustement structurel ak yu demee noonu euh, am ay résultat yoo xamante ni c'était mitigé mais léegi depuis 2000 c'est que yëf yi FMI li muy def dafa clair parce que FMI bu ko état bu état bu ko neexee soo mën na ko bu fi ñëwati mais c'est que li yi di jox état état mooy crédibilité parce que les les les grands fonds d'investissement amuñu jot xool Sénégal xamuñu Sénégal wuñ ko maintenant notu FMI la ñu xool lu FMI wax ci Sénégal ñoom euh, ay passagers clandestins la bu FMI duggee ñu dugg bu Sénégal amee benn projet bu tant de milliards bu bu insi bu FMI ne c'est bon. joxe Sonko ñu ñëw comme Banque mondiale. moo tax Banque mondiale di exigeant xam na ne bu duggee rek parce que 33 pour cent lay joxe maximum ci n'importe quel projet maximum 33 pour cent donc y a les yaa koy wuti. mais am na ñoo xamante ne dañ naan banque mondiale bëgg naa financer en Afrique mais damay topp sa ginnaaw moo tax nag ñoom ñu ne comme dañoo am ñoo xamante ne ñoom bu ñu duggee ñoo ñu dugg balaa ñu leen dugal foofu dañu dem ba xam dëkk bi. dañuy saytu bu baax parce que seen responsabilité la. Euh, et puis xool ndax yow respecté nga critères yi nga xam ne moom la ñu teg. parce que ñële ñoom rek la ñuy déglu te tamit duñu yàq seen réputation dañu am ñoom parce que IFM dafa am dañ ko noté banque mondiale dañoo seen notation. mais maintenant bu ñu fooyee seen notation bu ñu ne ah FM wax na lu dul dëgg notation FM day wàññeeku te baaxul ci seen ci seen réputation moo tax amuñu ci amuñu ci état d'âme dañuy ñëw avec froideur parce que xooluñu seen bopp mais dañuy xool li nekk seen ginnaaw parfois nag un un fonds d'investissement norvégien nit ah bëgg naa investir en Afrique 1000 milliards xawma Afrique xawma outil yi mais dafa am benn historique bu FMI am ak tous les pays africains concernant le pays léegi FMI la la ñuy laaj. ne ko léegi yow daal foo ma ne go rek ma dem léegi nag moo tax état du Sénégal il est obligé mu montrer patte blanche devant le fonds monétaire wax ko lu mu bëgg a def wax ko yoon bi mu bëgg a jaar et puis xool est-ce que ah lii kat suñu la joxee xaalis boo ko dugalee fii est-ce que dina génn lan mooy conséquence lan mooy problème yi nga expliquer boo leen yee nag jàppale du xaalis rek. mais dafa am des critères de de de de, oui, de bonne non. gouvernance euh, dafa am ay ay ay critères yu bari tamit. FMI def ci sukkandiku. alors moo tax ma ne la euh, est-ce que l'actuel régime qui vient de de s'installer euh, yenn idées yi mu doon promouvoir est-ce que taxul le Fonds monétaire def attention dem nañu au printemps du FMI. je pense que la moisson n'a pas été n'a pas été n'a pas en tout cas le premier contact n'a pas été décisif. Mm une mission du Fonds monétaire international qui va séjourner à à Dakar. Est-ce que ñoom waruñu xoolaat tamit yenn posture ak yenn position yi bu ñu bëggee raf euh, bu ñu bëggee bu ñu bëggee rassurer leur leur bailleur. bon j'ai pas suivi si mission bu nekkoon kii nag xaw ma lu ñu fa lu ñu fa jële mais en fait ce qui est sûr et certain que mooy euh, état boo ko yoree da ngay ñëw wax li nga bëgg. parce que débat intellectuel muy fonds monétaire muy muy les les ministères des finances euh, bu ñu gérer question yooyu. Euh, bu ñu gérer question yooyu. ma ne bu ñu bu ñu su ñu gérer ñaar yooyu bu ñu su ñu gérer question yooyu. c'est un langage de vérité parce que le fonds day bëgg nga rassurer ko ndax partenaires yi nekk ci ginnaaw moom moom le fonds bu bu koy def c'est plus pour toi que pour pour lui parce que day naan man suma ma duggee rek ñeeñ dañuy dugg. parce que am na ñoo xamante ni am na foo yoo xamante ni amuñu temps pour analyser Sénégal mën nañu ne ah Sénégal kat nu ñu defee démocratie dafa extraordinaire nu ñu defee élection dafa extraordinaire donc man vraiment bëgg naa fa dem bëgg naa fa investir bëgg naa leen jàppale seen truc démocratie yi xool nan investissement la yan investissement laa fay def mais damay damay déglu le fond je ne pense pas que nii Sénégal am na intérêt. Euh, am ak problème ak fonds yi bañ a d'accord ak moom ci yenn affaire bi. non mais mais mais est-ce que seen yenn posture souverainiste yi ak euh, li ñuy wax ci monnaie bi. Hmm. Euh, ensuite ak je pense que euh, bi ñu demee aussi le FMI veut y voir plus clair sur ce projet la ñoom nee nañu ñu ngi bind projet bi dinañ ko terminer vers vers vers novembre. Hmm. est-ce que yooyu mënul nekk ay goulot d'étranglement. non xam nga ce qui est ce qui est sûr mooy le fonds xam na ni. régime buy soogaa ñëw mënoo ñëw rek nekk ci am na temps boo xamante ni dañ lañ ko accompagner. temps de latence temps la mais xam nañ ni aussi xaalis bi ñu war a jox Sénégal mënul xaar mënul xaar. mais il faut que Sénégal conforme waaw non loolu moom loolu du ñàkk foofu mu am waxtaan mais xaalis bi ñu jox Sénégal mënul xaar parce que moom laa leen naan ressources yi balaa muy dugg dafa yàgg alors que dépense yi dafa dafa immédiate ay dépense yoo xamante ni da koy soxla tout de suite. maintenant dépense yooyu mënoo ne damay mën naa koo dàq deux trois mois parce que budget bi dañ ko defar ba pare def def ay prévision prévision yooyu boo ci rate rek euh, impact yu mu lay indil après mën na mën na gën a métti. mais est-ce que FMI dina dugal xaalisam ci réew moo xam ne euh, dañoo campagner changement de de de de, de monnaie. Mm-hmm. Euh, une souveraineté monétaire est que FMI dina dugal dina nangu sori euh, ak Sénégal bu fekkee ne dañoo nar a matérialiser. euh, cette promesse-là est-ce que FMI dina nangu sori bu fekkee ne le Sénégal dans sa nouvelle politique posture euh, de politique étrangère euh, mu ngi euh, fricoter euh, avec des pays de l'AES pays yoo xam ne seen point commun mooy ne ce sont des dig ce sont des putschistes ce, ce des régimes ce sont des régimes putschistes mais mais je ne sais pas est-ce que suivre nga président Diomaye ba mu demee ci dëkk yooyu yëpp je, je me suis dit euh, on n'a pas bien analysé le discours de Diomaye benn moo leen wax ñaari kii yëpp CEDEAO ñoo ko moom loolu dafa amoon solo parce que AES <coughs> c'est pas viable. mais déglu nga démb réponse premier ministre malien bi. mais xam nga premier ministre malien bi xam nga xam nga. xam nga c'est pas Assimi Goïta qui répond c'est le premier ministre malien qui a attendu que Diomaye parte euh, pour répondre à Diomaye. mais mais xam na ni loolu ñu def c'est pas viable xam nga AES ba léegi. ren Mali mille quatre cent milliards la ko UMOA la levé ci UMOA daaw ren ñu ngi commencé am problème au niveau de ces bons du trésor bu UMOA teewul jàppale ko les banques jàppalewul euh, mais ça va être compliqué parce que Mali tey mënuñu am onze heures d'électricité par jour le coût est très salé li ñu li ñuy dund maintenant dañoo nekk ci zone moo tax mën nañoo génn CEDEAO mais ñëw ñoo génn UMOA. xalaatuñu ko ah, voilà parce que dañ ne zone moo leen couvrir instant bi nii mais bu zone bi bañee a réagir c'est fini pour eux parce que ressource say ressource dëkk boo amee euh, militaire yu demee noonu. investisseur yi duñ de duñ ñëw. bu investir ñëw doo am devise euh, sa or yaa ngi jaay une partie Afrique du Sud une partie Suisse 1000 milliards Afrique du Sud 1000 milliards loolu nga am 2000 milliards yooyu nga am ci devise. la troisième chose tey li mu bokk ci UMOA moo tax Mali saa yi soxlaa bu lancé euh, euh, bon du trésor banques yi ñuy banques yi ñooy répondre maintenant bis bu ñu doon génn ne dañuy génn dañuy génn ci UMOA wala yu demee noonu xam nga dañu am seen monnaie bopp seen monnaie bopp ban valeur la am en dehors du Mali kenn dootul kenn dootul jënd seen seen bon du trésor mais Sénégal Ousmane Sonko ba ba fi euh, Mélenchon ñëwee nee na on va faire une sortie prudente le mot prudente a son sens je pense que dëkk yooyu rek information jox nañu information que nii ñoom ñoo gën a tàng ñooy ay militaire mais ñemewu ñoo génn parce que couverture boobu lañ soxla gis nga am na loo xamante ni bis boo ko perte boo demee deux mois trois mois euh, ça va être très compliqué parce que dëkk yooyu Mali Guinée yëpp fi ne ni UMOA la ñuy dundee couverture UMOA la ñu comme Grèce ni mu doon dundee ci les eurobonds parce que bu ñu créé eurobonds sax c'est presque comme c'est pour les pays comme Grèce pour ñu bénéficier wu ci performance su yu demee noonu mais Mali tey ba mu mujjee lancé son bon du trésor de quatre-vingt-dix milliards vingt-cinq quatre-vingts milliards vingt-cinq milliards la